da koo mën lool. waaye mais yooyu tamit yor nga ko. ah laa ilaha illallah maanaam fi ne maanaam ni ma yàlla dimbalee ma mokkal ci salaatu ala bi lu mu doon mokkal naa ci junni. waaw. Uh, ak yeneen ak yeneen asraar li ma ci xam bari na maa ngi ciy sant yàlla. waaw ni ma bu ma noonu ci bayre rek dangay jàpp ni bayre rek laa mën. mais sëñ bi dimbali ñu ci bayre parce que am na ñoo xam ne bayree tax ñuy wax lu bon pour am bayre am na ñoo xam ne tax ñu yëkk daanu jóge ci kaw daanu ci suuf pour ñu leen di tudd am na ñoo xam ne bayree tax ñu filmer seen bopp pour wax lu garaaw pour ñu tëj leen pour am bayre bayre am na façon ñu ne bëgg nañ am na ñoo xam ne bayre la ñu bëgg pour am wërsëg bayre la ñu bëgg pour àdduna xam leen ñii bayre la ñu bëgg pour mbir ma ñuy ne mbaa commerce ba ñuy def mbaa ak lu ñu mën a def mais mais bayre njaayit yooyu yëpp am na léegi allahuma salli ala sayyidina muhammad rafihu darajat wadudu rafiu darajaat waduudu waduudu waaw boo ko xoolee 1782 la jàpp 1782 mooy 27 allahu 66 multiplié par par par 27 mooy 1782 am na turu yàlla tamit bu mu jàpp muy ajj xay lalun am na ñu boole ajj xay lalun sam xasun sax sax sarafa xiisun mhm. fi ne nii bu fekkee ne yaa ngi liggéey allahuma salli ala sayidina muhammad rafihu darajaat waduudu sunu borom dana la may bayre boo xamante ne nii dana jaaxal adduna te 1782 nga koy liggéey eh. bu dee ci bayre ba tey jii mën ngaa bind zuyina li naas xubbu saxawaati bu oh, ah. am na am na ñu koy bind 7000 am na ñu koy bind 7777 am na ñu koy bind 7 am na ñu koy bind 92 am na ñu koy bind 99 yooyu yëpp boo jël baax na mais am na loo doo boole euh, zuyina da nga koy booleeg parfum parfum kaafin kaaf su nga fu xaalis ak suufu jumaa suufu marché waaw bu ko defee boo ko dee sangoo moom par force da ngay am bayre bayre moo gën a yomb daa fi ne bayre sax ba ci ba ci xam-xam bu ñuul am na bayre xam ne mhm. dañuy am bayre un an bayre ba fay kaay ma jox la am na am na boo ah. xamante ne nii kay mën naa la ko boo ko sangoo tey bayre bu a yokk boo ko sangoo tey tey tey tey waaw nit ñi commencé laa dégg te fi nii maanaam gis nga turu iblis <laughs> alaaji papa suñu borom lu mu bind rek lu nekk am na njëriñ na njëriñ iblis fi ne li alxuraan di di kawe kawe kawe boo ci génnee baatub iblis dara dootu ci des doo maanaam uh, day manqué léegi fi ne iblis moom boo jëloon tey ji nga bind yaa iblis yaa iblis yaa iblis nga bind ko 1111 waaw imaginer rek li ma lay wax ni la lu lu maanaam loolu yëpp dama koy wax rek ngir nga xam ni zulmaani yu dafa am xam naa ko waaw nuraani yu xam naa ko fi boo bindee yaa iblisu junni yoon nga def ko ci njaq lu bees nga def ci yii doomu adama di soxla ay dugub ay warga ay ceeb ay suukar ay xorom yooyu yëpp nga jël ko suul ko ci mbalit ba mu mat juróom-ñetti fan nga jël ko nga sangoo ko bayre moom yaa koy ëpp ci adduna moom ak noo ko mën a amee di nga am bayre waye du budé bayré bi nga xamanteni ni manam ñi seen xol sel ñoy gisante di bëggante nga xamanteni ben nafiq du la bëgg salaat bayré mo bo baxna salatu ala nabi mo waaye nak bay sëñ bayré nak xam nga ñu lay tuddu ni rek amo xaaliss tamit wax deug yalla waaw waaye fi ne fi ne bayré nak ba ah? fi ne fi ne sangatu bayré amna sangatu xaaliss amna waaw turu yalla yu joxe xaaliss amna? Amna li ñaan kimya o sahada du du ay tiaxan manam du lo xamanteni ni dang koy wax rek ni ci nit ñi diko dégg wala ki am na bay am na saafara yoo xam boo ko sangoo. day am xaalis par force ñàkk nga nekkee woon day dañ. day dañ day dañ fi ne boo mënee boo jël zuyu na linaas jox naa la ko nga bind ko 70. waaw la xalqu samaawaati wal ardi akbaru min xalqi naas walaakina aksara naas laa ya'lamuun nga bind ko 70. nga boole ko ndoxum taw. waaw ndoxum géej. waaw ndoxu robinet ak ndoxum teen. ba pare di di sangoo barke Cheikhul Khadim sunu borom dana la ubbi ubbi goo xamante ni dana mu jox naa la ci ndigal mën naa koo defalaate def ko defal ko ku la neex waaw ndax loolu loolu yëpp maanaam njëriñ la loo xamante ne jaam ñëpp ko mën a jë jëriñoo mais am na yoo xamante ne man fi ne am na benn sangat goo xamante ne juróom fukki million taxul ma defal ko bi mais fi ne boo ko bindee ndax lu mu boo ko doon bind fi ne lu mu ndaw ndaw di nga jël ñaari weer wala ñetti weer mu doog a pare waaye boo ko xasee ba sangoo dootoo wuti dara ñaari wala ñetti di nga ko toog di ko bind pour mu pour mu pare waaye boo ko xasee ba ba ba sangoo ko lépp loo dootoo wuti dara lépp lay fekk si da ngay dem ba jàpp ba nit ñi jàpp ni yow da ngay ruxus wala dara te fekk ne sunu borom mooy tàggat xéewal yi muy muy ñëw te lépp alxuraan la amul lenn lu génn alxuraan am amul amul lenn lu génn rasulullahi daal mooy ko sakkan moom mooy ko sakkan kii li ko samaam Cheikhul Khadim wax ni ko wa rafahnaahu makaanan aliyyan ak wa rafahnaa laka zikraka ku bëgg a yëkkati ko ku bëgg a yëkkati ko waaw bu ci nekk da nga koy bind 1111 wa rafahnaahu makaanan aliyyan war a fax na war a na la ko zikkar waaw léegi ñaar yooyu leer na boo ko bindee boo ko bindee benn bu ci nekk mille cent onze boole ceeg parfum yu neex yu amul alcool waaw nga nga nga nga nga nga nga koy sangoo fu kawe bu dee kaw terrasse wala booy sangu nga taxaw ci ci banc bu kawe maanaam da ngay jóg rek da ngay jóg da ngay jóg rek ku la bëgg a detteel mooy detteel mooy detteel allahu akbar fi ne fi ne isa waqaxatil waaqixa bii waaw waaw maanaam lu lu kéemaane la ndax am na turam sax woo xamante ne nii euh, li muy jàpp ak li muy boo ko dee liggéey. Mhm. maanaam wërsëg dana la yomba yomba yomba ba ca am na ki ku ma ko mës a jox benn at mu jekki-jekki woo ma fajar ni ma diw mu ne ma ah mu ne ma man de damaa jàpp ni yàlla daa taxañ sama wërsëg war ma koo jox fi ne nii. ndax ndax li muy ñëwee est-ce que du damay. damay faatu ma ne ko déedéet yàlla suñu borom mooy def noonu buy dot buy sotti. sama pan fees na du tax mu arrêté sama pan fees na yàlla du tax mu arrêté muy muy tur woowu asmara xaxazara say si dara zara siisin lu garaaw la maanaam turu turu isa waqaati la fi ne waaqe boo ko bindee aaya bu nekk nga def ci inna haza la rizquna ma lahu min nafadin nga boole ko laj ko lañ moom it bu la neexee nekk nga def ci wajaxaltu lahu maalan mamduudan moom it moom it day ubbi waate bu la neexee nga bind waa waaqe <laughs> aaya aaya bu ci nekk nga dugal ci na iftax baynana wa bayna xawmina bil xaqi wa anta xayrul fatihin dalay ubbi bu la neexee waaqi aaya bu ci nekk nga bind ci wa in tastaftihu fat jaamul faxat jaa akumul fatax nga nga di ko sangoo sunu borom dalay ubbi maanaam fi ne yooyu moo wax ci waaqi yëpp bu la neexee nga boole yëpp bind ko waaqi kii uh, uh, uh, waftax la naa ku la baamin kuntu faatihu li saalihiina min alxayraati yàlla waaqi zuyina waaqi alam nasara xa diggante aaya bu nekk ina haza la wax digënté ay bu nek wa jaxaltu malan maalan mam dunan yooyu yëpp nga boole ko jël kanar bu bes kanar bu kenn mësta tej nga jël ko bu bes nga ubbi ko def ko ci biir safras diko sango da ngay ko par force Ken ken mun ken mun la ken mun la tere tere ubbi mais mais mais sëriñ bi yifi dal kon mi ngi ci réew mi mi ngi ci alcorane mi ngi ci alcorane wa mi ngi mi ngi ci alcorane fi ne li nek ci Sénégal man fi dama bëggoon nit ñi ñu profito ci lima yor ndax yalla mom mo xam waaw waaye ñu profité ci ci ci li nga xamante ni yor naa ko ndax doyewuma ko dara. ba jaam ñi dimbali wu ah, ci. moo tax nga dimbali il faut nga waaw léegi léegi nag bu ko defee. Ah? ñu di jëfandikoo bu ñu ko dee jëfandikoo rek lépp mën naa sotti fi ne ku tëju ku amul dara ku nekk ci place bañ faa jóge kuy yëtu place bu mu mënta jot. est-ce que ngi dégg kuy wut xaalis kuy wut bayre yooyu yëpp yooyu yëpp mi ngi fi mi ngi fi maanaam jarul nit ki di sonn yenn sonn yi pour mën a am loolo déedéet jaru ko. jaru ko jaru ko. lepp ngi ci salatu ala nabi mais lepp ngi ci. mi ngi ci alquran mi ngi ci alquranul karim. mais sa diggante Cheikhul Khadim ak Serigne bam mhm. kooku aw fayam ndax mom yaakaar budul won ak mom tay ji damay gaddu tamam may gaddu gaddu ndënd dem di di def naka sa dul noonu. Mhm. dimbali na ma ba ku yalla bind ñewuma la ci lasrar mhm. ku yalla bind ñewuma la ci lasrar te mom dafa doon ko xamanteni ni bu la narta fay du la liggeylo waaw su lay liggeylo du la wax waccal waaye du la fay mukk ba ni la jeexal naa mhm. ndax li mu wax ni nafaxa nii wa biir yan faxul wara yàlla jariñ na ma te ci man lay jariñe ku muy ku ñuy ku ñuy ku muy jariñati xam nga ki bind ni jumlata maali wa midaadi wal xalam hadiyatan lil Moustapha baabi ni xam mais cofeelam ci rasulaay kenn xamul toll jumlata maali waaw wa midaadi wal xalam hadiyatan lil Moustapha baabi ni xam sallallahu lépp maanaam mboolem mboolem mboolem mboolem sama alal hmm? mboolem samay doom mboolem sama wërsëg lépp def naa ko muy addiyee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kooku moo bëgg moo bëgg yonente bi waaw mahat mahabati yal muxtaaru saydina wabul mahaniya wa ahli wa ahlina wal walada dammi wa ahli wa awlaadi fi daawu lahu habdan muskaani li sanada mais loolu doy war fi daawul lahu waaw moo tax moom Sëñ Tuubaa fi ne boo xoolee li mu ni mu ni mu def rasulillahi rek ak ni ko rasulillahi def moom moom moom maanaam preuve la waaw lu mu jox rasulillahi rek njol màkk delloo na ko nag fi ne fi ne bu dee jumlata maali wa midaadi jumlata maali yi lépp mu jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax fu nit gàddoo lu nit gàddu indil ko ko. allahu akbar. Hmm? wallaahu yansuru nii. wal xalqu tatbaxu nii. fil barri wal baxri zaa nafen bila dara. bila dara waaw laakin unaadi kullal xibaadi. ilaa ximaadi bila janaay. mu màggal jotee bitim réew avion yëpp yi kaaw fees. moo tax mu bind ni yasaralil mu yasiroon xasir. maxtaaruhu liya bila masir. billaahi waaw yàlla yombalal na ma lépp tàggatal na ma lépp bila masir nag mais mais mais ci xasida yi mu def. Mhm. ay salaatu ay salaatu ala nabi wax mais foofu yaakaar naa. Mhm. am na ci ay ay secret yoo xam ne tamit ah. fi ne bu ñu duggoon ci mawaahi bu naafex nga yuuxu. moom mawaahib waaw fi ne say jaka siisun. waaw booy bind boo jëlee safal saqima nafal alima xadal qadima ila najaa'i mooy say jakasis say jakasisun fi ne tur la fa turu faatixa la bu kéemaane kéemaane kéemaane boo xam ne. lu ne la mën a defal nit. ah yaa xayra rabbi xayra mu rabbi te yaftaxal baax da ci jaay fi ne boo ko jëlee mooy tas la mu sax sam tasla mustaxsam mooy umu Moussa umu Moussa bi nga xamante ne day maye wërsëg di may yàlla allahu akbar ah fi ne fi ne fi ne wa fi tawaali fi yaqulullah asraara la ilaha illa allah fi ne boo xootee boo xoolee baatub xat sabba xat sabba rek waaw boo ko boo la ilaha illa allah la nga xamante ne sëriñ bi lépp da koo def ci xasida yi xasida xasida yi fi ne ci mën wax dafa bare bare bare bare bari ba ba jéggi dayoo fi ne lu ki mel ni wakkaana xàkkanaa lay muminina fi képp koo xamante ne nii yaa ngi koy yaa koy yaa ngi koy yaa ngi koy saxal xoola fale mu ne huwa nabi wa rasulu wal xalil wa huwa xabib wa yukasirul xalil nga xamante ne fi ne bayit woowu rek boo ko dee boo ko dee sikkar 308 mhm. dana la jox wërsëg sa nga ba nga ba nga yéemu ci ci ci àdduna fi ne boo xëyoon di ko jàng ku yàlla bind du la mënal dara kon maanaam maanaam tag gi mu tagg Seydina Muhammad euh, mbind ma nga ñëw rek liir bàyyi noonu la ca nekk mbind yàlla moo jël mboolem luy secret def ko ci biir xasida yi sëñ Tuubaa yi ndax nee sëñ Tuubaa moo wax ni yàlla moo ko wax ni ko mbooleem luy génn wërsëg maanaam maanaam déedéet mbooleem luy génne euh, mbooleem loo xam ne bu ko nit defee mu génn ci aw yiw mhm. sa xasida yi moo ma ko génnal mhm. kitaabati ahabu lillahi jalil mun min julli maaluhoo sawaabun laa yarim sëñ moo ma wax loolu moo ne ma sa mbind mii mbooleem luy génne yiw rek bu ko nit defee am ci yiw sa xasida yiw bi ci génne moo ma gënal waaw léegi kitaabati ahabu lillahi aljalil mun julli maaluhu sawabun laa yërëm mais mais sëriñ xam naa mooy waxtu waa ngi bëgg dab mhm. dafa am ko ma envoyé message léegi ñi nga xam ni mhm. dañoo jékki-jékki rek tëdd tëdd mhm. ñu naan nañ leen a liggéey dem nañ hôpital def bilan docteur yi ni gisuñu dara am na ci ñoo xam ne dem nañ bitim réew tubaab yi ne leen gisuñu benn feebar mënatuñu jug ñii seen tànk yaa ngi néewi mhm. ñii seen tànk yaa ngi defi góom mhm. ñii dañu am luy daw ci seen biir yaram mhm. ñii feebar nañu seen alal wàññeeku na jaaxle na lan nga leen di jox loo xam ne wala lan nga digal loo xam ne feebar bi na ci ñoom mooy am na ñu ngi tëdd ci hôpitaux yi am na ñoo xam ne ñu ngi ci biir prison bi yàgg nañ fa bëgg nañoo génn am na ñoo xam ne bëgguñu dugg kaso ñett yooyu daal laa bëgg nga tojal ko rek ci ah. cinq minutes ah. euh, temps bi léegi léegi léegi ki nga xamante ni dafa tëdd kenn xamut lu ko jot